leen nuyu di leen jaar yéen ñi suivre Rond Sport ñu war a ci benn vidéo wax ci ki nga xamante ne bii na mooy coach Mali bi def narration bi ko Sonas bi laajee na ko est ce que yéen nekk ngeen grand perdant ni maam nekk ngeen perdant bi gën a mag ginnaaw am ngeen ñaari euh, gannaaw Côte d'Ivoire am na ñaari carton rouge ngeen am penalty bu nga rate ci match bi ba pare Côte d'Ivoire égalisé mujj leen dóor ci biir match bi loolu nekkul nekk ngeen perdant bu mag bi ne ko waaw mën nañoo wax ñun ñooy grand perdant ndax tey ñun ñoo waroon a dóor ak lu mati xew mais mu ne tamit dañuy jàpp na rek euh, am na ay erreur yu am ci biir match yoo xam ne yu kenn munu comprendre la ndax arbitre bi euh, am na penalty boo xam ne zoru euh, Côte d'Ivoire da ka foot mu dem vaar xool ko ñëwaat téerewu ko mu ne nag man loolu tax téerewu ko jeexal na ma fekkee dañ ko bàyyi noonu moom ëllëg lan mooy nekk rek a fubal li mu bëgg a maanaam ginnaaw tiiru penalty boobu mu ne ëllëg kon ndax daañ tiiru penalty faute ci biir surface fi Afrique moom daal nee na loolu lay laaj ñi nga xam ne ñooy jiite wàllu arbitrage yi waaye daal mu ne xale yi football nañ defal leen war jàppoon nañ maxi bi koy gañaa mais nag yàlla dogal na mu ñu ko gañaa kon football noonu la des fois da ngay ñàkk des fois nga nga gañaa mais nag ñuy wax Mali du courage Côte d'Ivoire fii démb Mali Mali yéen a mérité woo ngeen pour gañaa Côte d'Ivoire ndax yéen a football ci kaw Côte d'Ivoire comme ni Côte d'Ivoire mérité gañaa Sénégal ndax football dafa football ci kaw Sénégal Mali démb lu ko raw ngeen football ci kaw Côte d'Ivoire euh, moo dëkkul fenn football moo rek